te nag ñu ngi fii ci njaareem ngir fàttaliku jëmu tedd bu sell nga ji Serigne Touba Khadim Rasoul ginnaaw bi nga xamante ne wàcc nañ liggéey fii ci kër gu te Cheikh Modou Moustapha Mbacke jële ko fii yóbbu ko Touba tey jii nag njaboot gépp maas àndoo ci njiitu Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacke yàlla na yàgg te wér ak ki nga xamante ne moo jiite conseil supérieur bu Darou Khoudoss Serigne Cheikh Aliou Mbacke ak mbooleem ñu koy jàppale ci wàllu liggéey bi lépp ñu fas yéene àndoo ñëw fii fii njaareem ngir fàttaliku bis bi nga xamante ne te jii kër ñu ngi ko amal di waaje waajtaayu màggal gi nga xamante moom màggal Serigne Touba Xaadimu Rasuul ci Daaru Xudoos ak yëpp ñu fas yéene ko àndandoo sëriñ Ahmadou Mokhtar bi mu egsee ba dal ci la sëriñ Mountakha jokkoo fas yéene ñëw fekk fii ci barab bi ci kër gi es yi ñoom ñaar ñu safonte ziarante euh, wane mbégteem ak bis bi nga xamante ñi ko amal fii njëreem ngir lépp di ay ñaan jëmal ko ci sang bu tedd ba Sëriñ Tuuba Xaadimu Rasuul ginnaaw bi Sëriñ Muntaxa delloo ci dal ba nag xam ngeen ni ci la conseil jóg ànd Sëriñ Fàllu Mbàkke ñu àndoo ñoom ñëpp maas bi nga xamante ne amal nañ ko exposition bii nag dañ ko amal tey duppee ko Cheikh Mouhamadou Basir ak Cheikh Mouhamadou Moustapha ñoom ñaar xam ngeen ne liggéey bi nga xam ne ñu ko liggéey ñoo ko àndoon euh, sëñ sëñ Muslim Mouhamadou Moustapha euh, yàgg nañoo dégg ñaan Moustapha Maguette Bass te loolu li ko war a mooy ak taxoo ak dendandoo ak waxtu wu ci nekk ñu bokk ci xalaat yi nasandoo tey jii nag loolu moo sabab ñu nekk fii ci njaareem amal exposition bu am solo jëmee ko ci jëmu ji tedd jooju ak mboole ñi nga xamante ne ñooy kilifa diine yi muy lu rafet loo xamante ne yëpp dégg nañ ci muy bis bu am solo bis boo xamante ne di ko tax a jóg rek mooy waajal bis bi di ñëw di ñaar fukki fan ak benn ci weer wi di ajuma ngir fàttaliku wàccu liggéeyu Seexul Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul te Seex Ahmadu Mustafaa jëlee ko njaareem andi ko fi fi Tuubaa tey mbooloo mépp di maase waajal bis boobu ci wàllu set ci wàllu jàng wàllu ñaan ngir fas yéene xam ne bis boobu nag Sëñ Tuubaa yàgg naa wax ne yàlla na ko suñu bon muy bis bi gën ci ay bisam tey ñu fas yéene àndandoo ak mboolem mi ci ginnaaw conseil supérieur bu Darou Khoudoss Serigne Cheikh Aliou Mbacké Serigne Rahmane Mbacké ni fan ak mboolem ñu leen jàppale eh, ci wàllu organisation bi tamit xam ngeen ne Serigne Ousmane Mbacké bu diwaanul Mouridina lépp lu ñu fi organisation diwaan bi ñoo ko yore ñu àndandoo muy liggéey bu rafet liggéey bu am solo ànd ko mbooleem njaboot gi mbooleem cheikh bi mbooleem talibé yi ñoom ñëpp maasandoo takkandoo àndoo topp ci ginnaaw Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké ngir fas yéene fàttaliku eh, bis bi nga xamante ne ca la woon sang bu tedd ba Serigne Touba Xaadimu Rasuul ci bi ñu demee nag ba tëkkusaan nag ci conseil bi nga xamante ne moo jiite liggéey bi sëriñ Cheikh Aliou Mbacke ànd ak Serigne Abdourahmane Mbacke Gaynde Fatma ak Serigne Cheikh Baara moom Serigne Cheikh Makhtar Mbacke ñu ñëw nag ci base bi euh, door waxtaan yi nga xamante ne incha allah dañ ci déglu Serigne Abo euh, Kebe mi nga xamante ne wax na lu am solo ci Cheikh Amadou Moustapha xam ne mooy ubbi jotaay bi niko ko oustaz waxe won bëggoon nañ mu yaatu lol waye jamono ji motax serigne sëriñ kebe ñu gën ko xam ci serigne Abou kebe tok ni ci sama chamoy di mourid sharif bu ñepp xam mu yëngu ci xamle ak xam di yëngu ci xam-xam di yëngu ci jota yu mel ni ci barab yu bari ci rew mi ak bitim rew ci kër sëriñ bu mbakke yaroo it ci suufu kër sëriñ bu ak kër sëriñ bu Mbacké yaroo fa jànge fa ba xam lépp foofu la ko xamee donc bi mu amee xam-xam bi nga xamee ni suñu borom dénk na ko ko sax na foofee ci kër sëriñ Chouaïbou lu ëpp fukki at di jàngale di taalifkat boo xam ni ñu bari xam nañ ko di génn lu bari ci wàllu Europe yi ngir njàngaleem sëñ Touba akub liggéeyam yaatal ko ci mbooleem murit yi ak ci mbooleem taalibe yi moom lañu tànn ci jataay bi ngir ñu defal ñu am nubza rek ci taxawaayu Cheikh Mouhamadul Moustapha al Karim mi nga xamee ni moo jële woon Serigne Touba ci këram gi yóbbu ko ca këram gee ñun ñëpp ñu maase teewlu ko Serigne Souhaïbou danañu tënkal lenn ci taxawaayu Cheikh Mouhamadou Moustapha ginnaaw Cheikhul Khadim danañu fàttiwa fàttaliwaale. waxtaan ci Cheikh Moustapha mooy wax ci lan mooy ak murit ndax moo résumé yoonu murit yoonu murit weesuwut nga doonub taalibe baa nga doonub sëriñ ñaar yooyu nag foo ca nattu Cheikh Moustapha fekk ko muy kacaman fu ma te sëkk boo xoolee dimension murid sadiq ci Cheikh Moustapha da koy mat sëkk nga xool ab sëriñ ak kilifa nan la war a yilifee am mbooloom nan leen war a fan la leen war a jaaree yan jikko yan qualité la war làmboo pour man mën na wommat njabootam foo ci xool Cheikh Moustapha da ciy mat sëkk kon dafa mel ne waxtaane ko mooy waxtaane yoonu murit kon Cheikh Moustapha murit saadiq murit saadiq sëriñ Tuuba moo ñu ko waxoon dañ lay jaarale fañ la war a jaarale ci xam-xam ci yar ci waajal la def ci yow iraada sadiqa muy ak taalibe gu wér loolu pëstéef am himma loolu ku ko xool ci Seex Moustapha dañ cay fet mu mat ca sëkk ndax mooy kii mooy ñi yoonu murit njëkk a bu doon yoonu murit ab école la ki mu njëkk a produire génération bi ci jiitu sëñ Tuubaa defar leen jaarale ko ci sëñ Daam Abdourahman ak Seex Maam Cerno ñooñu mooy génération sëñ Moodu Mustafaa kon mooy kii yoonu mu di ndamoo ndax mooy ki mu njëkk a defar génération bi mu njëkk a defar ci xam-xam ci alquran ci xam-xam waaye tamit ci yar ak defar ay jikko kon ñi ñu gën a yaakaar ñi ñu gën a naw ñoo ko defar gannaaw waajuram ba seex daam abdourahman maam Thierno ni ko sëñ Fallou baaxoo waxee rek ne maag sama mag sëñ Moustapha sëñ Modou Moustapha sunu dañoo yar bañu ne nër ar jàngal ñu bañ ne ar yee ñu bañ ne jar te yaakaar naa ne loolu mooy baasu tarbiya yoonu murid jar jàng ak yee waaye yëmu ci doy na sëkk doyoon na ko ndam ci moom mu doon doomi sëñ Tuubaa waaye niñ ko baaxoo waxee daana wax ne doon doomi sëñ Tuubaa am na solo lool wuutu ko rëy na lool waaye man ak njub moo ma ñor njub googee nag ca lañ ko toqi fa mag ña jaar ci tarbiyawu ci wut yàlla ba àgg ci maqaama yi gën a kawe foofa lañ ko jaarale mu teel a dund ay jafe-jafe teel ñeme coono teel a doon am murit saadix dara yittewu ko dara ñoru ko lu dul yàlla ak yonent bi Sëriñ Tuubaa bi sëriñ bi jugee ci géej gi ci tikub géej gi ñëw fekk alliwaam noppi xam-xamam sori sëriñ bi bëgg koo jaarale fa gaa yàlla yi di jaar moo tax mu woolu ko mu fekk si ko ca Mauritanie ca gànnaar kon manees na ni li ëpp ci tarbiya ruuxiyaam tarbiyaam foofee la ko defee muy barab bu metti woon barab bu bari woon i jafe-jafe nga xam ne góor yàlla dëgg dëgg moo fa mën a dund ndax ku ne xam ne ne ñi daan siyaar si sëriñ bi rek di dem xomaag dem ca gànnaar lañu daan jànkoonteel rekk dafa doyoon sëkk waxuma laa nag nga dëkk fa di jànkoonteeg la fa nekk ci ay metti bu ñu pour nga xam mettit yooyu sëriñ Bachiru nettali na ci minanul baaxil qadim ne euh, sëriñ bi bi ñuy nekk ci gànnaar ne maa ngi fàttaliku bis boo xamee ne ñi ngi nekkoon ci gànnaar ci benn siyaam gu tudd Babacar boobu sëñ bi moo fi nekk sëñ mag bi nee na jamono jooju mu ngi tàng tàng woo xamee ne euh, ndox amu fa àll bu lëndëm këriis amuti garab amul ndox amut lu nit di lekk nee nga ñu ngi wàcc woon ci genn garab goo xamee ne ànd ak sëriñ bi te boobu ñoom ñëpp ñoo fa nekkoon di tarbiyewu garab ga sax nee na amut ker sëñ bi bu ñu bëggee mu amuk ker sax dañuy jël li ñu sol def ko taqalante ko pour sëñ bi mën a toog ci suuf ba mën a am ker gum gum toog nee na bu boole ci barab yoo xamee ne lépp ay dég la jant bu tàng boo xamee ne ashiatu shamsil multahiba nga noonu la ko nee na bu sëñ bi bëggoon sax lu mu jàppee duñ mën a am fu amee ndox waxuma laa ñun nee na bala ñoo am luñ naan dañuy wutal sëñ bi lu mu jàppee ba noppi ca la ca des ñu jéem ca naan nee maa ngi fàttaliku bis euh, sëriñ bi ñu wutal ko ndox mënuñu koo am dañoo dem ba di wër di wër ba àgg ci genn siyaan benn lu mel ne teen bu yàqu ñu dugg fa yoor kenn mu dugg xool nee na ndox ma sax ñiis na ba daanaka luñ mën a tanq sax amu fa ca nee na loola lañ tànq muy lu taq ñu ñëw jox ko sëñ bi sëñ bi ci la jàpp la ja des ca lañ barkeeloo naan ca kon li muy doon doom yi sëñ Tuubaa li muy amub cër lépp téewut lii la àndoon di dund ak baayam foofe ca gànnaar kon li mu am da ñaq ñàq loo xamee ndax nee nañ wax na ko nee na lu lu ñuy liggéeyale Sëriñ Tuubaa kenn kenn kenn mënuma ca kenn mënuma ca néeg daan takk kenn mënuma ca addiye ya kenn mënuma ca kaamil ya fu waay lu lu ab taalibe di def rek fexe woon naa ba kenn mënu ma ja boole nag doon doomi Sëñ Tuubaa ndax bu ñuy xool fii rekk gis nañ ci ab leetar bu mu bindoon Sëriñ Tuubaa ne ko joxoon ko addiyee ju rëy waaye li gën a yéeme ci leetar bi mooy teggin yi teggin yi muy wax ni muy wax ak Sëriñ Tuubaa moom moo ñuy wan dëgg dëgg dimension sëriñ Modou Moustapha ak ak taalibe ndax ba ci addiye ji sax du ko tudd da koy ishaara rek nee na ko hadihi risalatun mu ne bismillahi arrahmani arrahim tubtu ilayka tawbata abdin zalimin la yamliku li nafsihi darran wala durran wala nafan wa qad jaaltu fi yadi hamili يد الحامل ما في سورة القدر حامدا وشاكرا وأرجو ولا أرجو سواك في الدنيا والآخرة ولا تكني إلى أحد من ما يوم جيت الجد كلا تبي موي توب لا دام الله أديج زا أكتوبم لجيتن يا مانغلي توبل توب جام بوتون جام بو خامي ني مانول بوبام munta lor boppam mun munta jariñ boppam waaye lii firndeel sama tuub mooy jël naa boole naag ndaw loolu lu tolloog sóoratul xadre la ca sóoratul xadre mooy kon teggin yi gis na sax seen addi sax duñ ko tudd la ca sóoratul xadre mooy alfun min min ah, xayru min alfi shahr waaye maa ngi ñaan nga yoral ma sa bopp sama lépp jébbal naa la ko te bu ma bàyyee dara sama bopp yaakaaruma kudul yow adduna ak alaaxira sëriñ bi tontu ko ne ko alhadiyatu tujzibul murida ila saada wa uluwul maqaamaat وكثرة المال وطول العمر ومحبة الناس إليه wax ko yu baree bare ca leetar boobee ne ko day addiye ji ñëw na day waaye sa xol war naa sedd ndax lii nga def day mooy tax ku ko def yàlla may la mooy may ab murit kon sëñ Tuubaa ab muritam la ko jàppe woon waxu ko doom ak baay waaye tujzibal murida kon en tant que murid la ko bindee sëñ bi tontu ko en ab sëriñ ci taalibeem ne mooy may murid bi texe moo koy may maqaama yu kawe yi mooy yokk wërsëgam moo koy may gudd fan mooy tax nit ñi bëgg ko mooy tax ba ay sut ay kemem mooy tax ba doo gis ñaari malaaka yi ci sa bàmmeel mooy tax nga gaaw a jéggi siraat mooy tax nga mucc ci mbëgulum bàmmeel mooy tax euh, sax yi du lekk sa yaram agit nag yeneen yu bare yoo xam ne kenn wuru koo tudd ci làmmiñ waaye des koy junj rek kon kooku mooy Cheikh Moustapha kon Serigne Touba moo ko euh, wéral moo ko seedeel ak taalibeem loolu nag doy na sëgg ah Cheikh Moustapha liñ mën a jànge ci moom it comme ab njiit loolu yaakaar naa ne la sëñ Moussa ka waxoon ne hal fil wara man shakka anna al Moustapha warisa al xadima wilayatan doomay di baay lam ca teg ne bahrul xaqiqati والشريعه والندى موج يموج للوراء يا جن واي لولو موي كاليتي اك ما سك تي شريعه ما سك تي حقيقه واي والندى عمل نجرن من دفي عمل نجرن من دفي موج يموج للوراء لولو mooy qualité yi nga xamee ne mooy tax kilifa mat kilifa waaye Cheikh Moustapha lii wane tolluwaayam dëgg-dëgg mooy mat gi mu wane bi fi sëriñ bi jóge ndax dégg ngeen ko ci li historiens yi nettali ba tey xew-xew bi ba mu amee fa mu jaar ba egsi fii fexe na ba képp ku ko wër yéeg mu ku ko ku ko war a yéeg yéeg na ko ku ko wër yéeg yéegu ko loolu fa la mat mën a yem euh, farlu gi mu def ba lépp li ko sëñ bi dénkoon ci bu fi jigéen na amee na noona mat googee ni mu ko taxawee wane na ko bu wér a wér waaye dëggi dëggi Seex Moustapha fi muy feeñee mooy li mu fu def gannaaw Sëriñ Tuubaa ndax ku ne xam ne ne yoonu murit lu dérangé woon tubaab yi la ndax mooy pakk bi teewoon tubaab bi li mu bëgg a not na yaram yi waaye mënta not xol yi ndax mooy benn force benn pas-pas bu ñëw taxaw ci kanamam di jindi nit ñi di leen xamal yàlla ba libérer seen xol libérer seen ruu kon dafa mel ni tubaab bi li mu bëggoon li ko ko tee mën a am mooy yoonu murit ak njàngaleem sëriñ tubaab kon li ñu doon xalaat mooy donte sëriñ bi moom jéemal nañ ko nu ne tëna leen nañ ko bàyyi mag la bu fi jugee rek ñu profité ci faagaaka ko yoon wi jeex waaye matuk seex Moustapha ak xikmaam ak mana boole ak sajaa ba mu yoroon moo tax fexey tubaab yooye lañ bëggoon a raafal woote bi yàlla bi gannaaw sëriñ bi dara sotti ji kon loolu mooy matu sëñ Mourou Moussa dëgg. ginnaaw bi nga xamante ne nag ci togsaan nag bi ñu demee door waxtaan wi ci ab diir ci la ki nga xamante ne moo di Serigne Ahmadou Mokhtar ñëw ci baas bi euh, bi mu ñëwee tamit toog am na ab diir ñaanal waa baas bi doog a wàññi ko waa dellu euh, nes tuuti tamit Serigne soxna maam Fatou Mbacké ñëw ci baas bi toog ba waxtaan wi jeex muy lu am solo lool muy kàddu yoo xamante ne euh, jotaay bu am solo wax dëgg yàlla bu rafet lool boo xam ne ñëpp bëgg nañ ci te mu nekk nag woytu fii ci dëkk sëriñ Moustapha mi nga xam ne Mamadou Moustapha mi nga xam ne moo tax yoon wi sowe njabootoom gi def bis bu mel nii ngir waajale ko jëmm ji nga xam ni ndigal la ko way juróom joxoon muy mu Khadim jëfe na ko bañ am ci la ci am tey muy Cheikh Mouhamadou Bassir mooy sëriñ bu Moustapha sëriñ Thierno Diakhaté léegi ni sëriñ Basiru dafa jóg jëm si ci sëriñ Modou Moustapha sëriñ Modou Moustapha yónnee gàttanu ko moom sëriñ Modou Moustapha néeg bi mu nekk mu nekk ci kaw lal bi mu demee ba ndaw li war dugg ci mu wàcc toog ci romb jàng bi mel na magu Modou ni ko ah waaw man de sëñ bi jaaxle naa ndax ki ngay teg seet yaa ko mag dangaa war a toog ci kaw mu toog ci suuf mu ne ko loolu de am na aada de wa damaa war a toog ci kaw mu toog ci suuf loolu la ko aada may waaye nag moo defee loolu moom aada du ko may fekk ma ci kaw su ma toogee ci suuf moom bu njëkk dina ci maa toog te boobaa suñu waxtaan ci lay dàq ndax du ma yokkatu ak Serigne Modou Moustapha ku nekk xam na Serigne Bassirou diggante ak Serigne Touba. sëriñ Basiiru diggante ak dëkk bi sëriñ Basiiru diggante ak sëñ diggante ak njaboot sëñ Tuubaa bi ba ci diggante doomi sëriñ Tuubaa yi ak njaboot sëriñ Basiiru mu mel ni diggante boobu demoon na ci ba ci diggante sëriñ Cheikh mbakke mi njëkk wuutu sëriñ Mourou Moustapha seen diggante bi ci njëriñ kon sëriñ Ahmadou Moukhtar bu joxee ndigal sëriñ Cheikh ak sëriñ Abdourahman ak mboolem yi nga xam ni ñooy saytu liggéey bi ñu njëkkee ko yi dañoo delloo alal borom te kiñ ko delloo li li may wax waxtu bu nekk rek duñ doomi sëriñ Touba sëriñ Touba lañu dañoo doon sëriñ Touba kon diggante tànn ak mbég yàlla nag ci diggante boobu te mooy diggante sëriñ Modou Moustapha ak sëriñ Bassirou mi nga xam ni fi lañ dikk di ko waajale màggalu booy juróom gi nga xam ni lu mbur gi am tey ci boobu lañ ko amee kon sëriñ bi mi ngi leen sant ci loolu di leen ci gërëm di nuyu it taalibe yi nga xam ni waxtu wu sëriñ bi jógee lu muy def ñooma lu muy bëgg a def bu jógee ñu def ko ñooñu it dañ leen sant ci waajtaay bii nga xam ne suñ jàmbar dara ñu ko waaj di jël ci kàddu yooyu di ci nuyu ki nga xam ni moo fi teewal gouverneur gouverneur teewal fi ministère de l'intérieur ministère de l'intérieur premier ministre ba ci président Macky Sall moom préfet mii toog ñoo koy nuyu dafay bëntu nuyoo ci ki nga xam ne moo gën di ko xamal ni moom borom réew mi ki tax ñuy màggal sëriñ Touba ki ko yóbbu Touba ci ndigalal waajuram ba tax ñu am li am moom day tey bu nekkee ci bopp réew mi bokk na te ña ko jëmbat muy ko sëriñ Moustapha ndax xartu suñ jàmbar ji sëriñ Mbàkke sama loolu kii loo xam ne jaar daanaka ba am li am seen loolu kon màggal gi màggal ma noo koy sant li jiitu ak di ko sant teew ndax nun duñ bañ bañ féete waaye nag na xam ni màggal gi màggal na lépp lu ci mën a nekk murid nañ man ko def waaye moom kër gii day kër kon ngan nu sëñ banque yi di ko gërëm di ko sant di leen sant yéen mbooloo mépp di ñaan ñu tàmbalee ko ci alhamdulilahi rabbil alamin ñaanal Seex Sidi Muxtaar ak mbooleem njabootu Sëriñ Tuubaa yàlla yàggal lañu te yàlla def ci réew mi jàmm ndax réew mi toll nañ foo xam ni ñun ñëpp a war a ñaan jàmm ci suufu Sëriñ Tuuba ndax yàpp sa morom toppandoo koy matu maas xamoo kuy sa kilifa wax lu la wóorul loolu lépp dafa xew te loolu nun ñi nga xam ne dañuy askanale Sëriñ Tuuba nun noo war a delloo suñu bopp xalaat suñu bopp Sëriñ tubaa def ko Sëriñ Tuuba kat sëñ Cheikh Aliou noo ngi lay sant di sant mboolem ñi nga xam ne ñoo fi nekk waa wilaaya ak talibé yi nga xam ne ñoo saytu kër gi muy waa kër Cheikh Mamadou Bassirou ñoo leen di sant di leen ñaan di leen xam ni dal bi tuwaakala macha allah yal na yàlla def jàmm te defal nu ci diggante ñaar ñi nga xam ne ñoo ko seq asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu li nga xam ne ci laa waaye nag ba tey ci kaw laaj ndigal sëriñ Cheikh Aliou Mbacke mi nga xam ne moo jiite conseil bi ca conseil supérieur de Darou Khoudoss ñoo taxawul di saytu ko ndax lépp laaju ci kër gi ñoo koy saytu ñooy lëkkalee kër Cheikh Moussa doomi Cheikh Moustapha yi itam waaye kàddu yi day gàtt ndax euh, temps bi duñu ko may waaye rek ñu xam le ne bis bii dañ koo amal ngir waajale ko bis bee di xew ca Touba di màggal Serigne Touba gañuy defee Daaru Xuduus Serigne Touba di bis bi nga xam ne ci la waxoon la sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne yàlla defal bis bi gën ci samay bis muy bis bi may daje ak yàlla nangu ko Euh, Cheikh Moustapha jot ci ndigal taxawal ko ànd koog mbokk yi ànd koog taalibe yi ànd koog jullit yépp di ko defe ca Touba di bis li tax nag ñu koy waajale fii ci Njaareem dañoo xam ne fii ci Njaareem de Serigne Touba nekkoon 1912 ba 1927 ba suñu borom jële ko fi mu dellu ca moom ci kees gi ñu nekk ñu nekkoon nañ ko waajale fii tudde ko ba Bachirou Mbacke mi nga xam ne moom la Cheikh Moustapha yabaloon mu yóbbu ko Touba ba dikkaat ca xat dëmul ñuy ñaar ñoo xam ne dañoo doon lenn ndax li leen boole dafa bari Serigne Touba daf leen a boole kokki boole leen jikko yu rafet boole leen bëggante ngir yàlla boole leen ñu ànd ngir yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba ak bokk Cheikh Moustapha Al Karim yabaloon ko nag des fii ci kër gi moom assumé ay responsabilités am ndax ki mu yóbbulu dafa nekkoon ci résidence surveillée mu toog xaar tubaab yi nga xam ne ñoo ko fi téye woon ñëw mu wax ak ñoom bi ko Cheikh ma Bachir yóbboo ba ñëw nag ñépp ne jeex na kon daal jeex na Sëriñ Tuubaa dem na Tuubaa jeex na yoonu murid jeex na am benn boroom xam-xam bu ne déet ginnaaw ba nag ba mu xoolee Cheikh Moustapha doxinam xool Sëriñ Tuubaa doxee na muy wenn doxin mu jël xelimaam daf ne daat ne من قال قد ذهب الخديم دفينا فقد افترى اسما عليه مبينا كوني سيرين توبا دامد توبل داف nga بكار بوري سيرين توبا ديمول ني نكو انامو من هذا ابنه الهادي محمد مصطفى ورث الخلافة والمكارم فينا من دوم جوجو جي nga xamne moy gindi ni reer moy gindi jaamu yalla jaamu yalla yi de محمد مصطفى mi ngi ju sin bir ta mom tek mo donu khilafa ak serigne donn sirab sirub xilaafa ga waaye donn makaarimal axlaq ya nga xam ne Sëriñ ma man ko donne woon ca sallallahu alayhi wa sallam kon bis boobu la ñuy waajal di ñaan ñépp eh, teew ci ndax bari na lu ci Cheikh Moustapha al Karim waxoon borom xam-xam yi di ko wax ba wax nañ ne sax képp ku ci mënta dem yoon wu eh, yoon woo jël rek mu jëm Tuubaa doxal ba fa nga mën a yem bu la fa bët seetee malaaka yërmande yi danañ la gàttandu te am nga yoonu màggal tey des na la jéggal say bàkkaar da mel ne kuy soog a ñëw ci àdduna kon ñuy ñaan ñu egg ceeg jàmm te lépp lu ci waay def suñu borom fay la ko te am nañ ci yaakaar ndax yàlla moo waxoon ne inna allah la yudiu ajral muhsinin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu ah nuyoo googi tàmbalee ci ki nekk ci bopp njaboot gi te nekkoon ak ñun léegi ba wàcc ba ci ñi nga xam ne ñëpp ñoo nekk ak njabootam waaye law ba ci njabootu Serigne Touba gi yëpp kenn ku nekk nga xam ni monsieur le président de la république ak ñu ma fi lim ñëpp ñu ngi lay ñu ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa wàccuwaay ah di leen ni euh, li sëñ bi wax sànkit ñu ngi ciy bàyyi xel bu baax c'est monsieur le président de la république ngeen am xel mu dal ni kenn du ko jiitu ci bésu Mouhamadou Moustapha Mbacké loolu moom amul dara luñ ci naatalle màggal googu ak màggalam la te incha allah buñ ci àggee di ngeen xam ni yëfi boppam la beneen bi mooy ab ziyaara ci bés bi nga xam ni dangeen ko waajale màggalu Daaru Xudoos ko nga xam ni kat ah ñun de waa Njaaréem am nañu mbégte lool ci bés bii nga xam ne indil ngeen ñu ko ndax dañuy faral wax ñaan autorité ci biir njaareem chance la na fekk ni nag chance boobu na nga ko xam ba li tax mu doon chance nga mën caa tegu ba la nga am ak lépp lu la fi indi suñu borom dimbali la ci waaye Sëriñ Tuubaa jàppale la ba nga mottali ko ndax boo jugee nekkee njaareem ba jugee fi sa liggéeyaloo sëñ bi dara yaakaar naa ni chance ba doon wax ab pertement lay doon ci yow loolu it ñun ñii ay autorité ah ñu teg ñu fii ci njaareen xam nañ ko bu baax moo tax lii nga xam ne indi nañ ko mu doon lu njëkk ci waajal màggal bi kon ñun waa njaareem a ah, am nañ ci mbégte bu baax te doon lu ñuy ndamoo ndax it ku sañoon sa aykat lépp loo xam ne lu njëkk la te di lu baax mu doon si sab ay ah ñun nag mu tombeel si nga xam ne ñu nekk fii kon bis bii dañuy jàpp ni suñu bés la ah ñun ngeen ko baaxe muy bésu ñaan bisu fàttaliku waaye bisu dox mbokk ndax lii ak dox mbokk ak fàttaliku ak mbokk ak rafetal rek moom moo ko tax a jóg kon ñun ñëpp ñu santaat suñu borom bu baax a baax rawatina ñun waa Njaareen ah di santaat waa kër sëriñ Mouhamadou Moustapha Mbacke ak waa kër Mouhamadou Bachir ci bis bi nga xam ni baaxee ngeen ñu ko ñun waa Njaareem. sunu borom ngi julli ci yonent bi Muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di sant suñu yaakaar tey ëllëg di xaadimal Bamba di ñaan Sidi Moxtaar sunu borom yàggal ko fi. ba naal bi mu naalal Serigne Touba mu eggale ko eggale yi naal yi ko jiitu woon boole ci naali boppam ñu ànd ko ak moom te lépp dëppoo ak ngërëmal Serigne Touba ndax mooy Serigne Touba di rafetlu jataay tey bii nga xam ne li muy wundu bari na lool moo di njaarim kenn ku ne xam na symbole bi muy représenté ci dundug xadimu rasul ak colonialiste symbole bi muy représenté ci taxawaayu l'islam bi xadimul Moustapha taxaw ci réew mi te àndoon ko ak euh, boroom turuxu suufi yi fi newoon ca waxtu woowa euh, taxawaayu résistance bi mu taxawoon ngirum réewam سيمبول لا تي نجارم سيمبول لا تي لاخ يقول قديم امنا في فكيات الجروم غيناو بيمو جوغي تي سيجور كارسيرالام بي تي غابون موي اكزيل بي غالبة البحريه بيمو داف تي غابون مودام موريتاني ni tante assimiler ko assimilation waaw ngir mu bañ a nekkati ndax ñoom ni ñuy assimilé mooy ñi ñuy jël jàngal leen seen jikko ñoom tubaab yi def ci seen jikko ba liñ doon fay administrateur ba dañ fay indi koo xam ne dañ ko yor jox ko seen jikko ba dootuñu ko fay te dañ leen defal lu gën ci ñoom la administrateur bi daan def ñu yaakaar ne comme mi ngi bind arab buñ ko yóbboo foofu dañ ko mën a assimilé ba du nekkati lim nekkoon fekk xamuñu ne wax nañu booba الضر والنفع من الرحمن ليس من البدان والسودان njëriñ ak lor du jóge ci ku ñuul wala ku weex xel du suñu borom moo ko jox doomu aadama ñun ñëpp ay doomu aadama lañu kon lor wala njëriñ ma ngay jóge ci tabaraka wa taala kon foofu la njaareem taxawee ci béréb boobu ci diggante dundu Xaadimu Mustafaa ak ci résistance pacifique bi mu def face aux autorités coloniales euh, mu bàyyi fi doomam jooju ginnaaw ba mu liggéeyalee Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nekk mu jaddi soppi lu bari ci Sénégal mu demoon ba nga xam ne danoo tolluwaatoon ci li ñuy wax antul jaahiliya nga xam ne lu jiitu yonent bi ak réer a amoon ñu dem ba nga xam ne lislaam dem na ba lu bare bari alxuraan ñu koy foyee ndax ci lañ daan bandaan di ci may ay soxna travestir ko l'esprit du Coran Serigne Touba nekk mu jaddit yeesalaat indi ci tarbiyatul islamiyya muy lu am solo parce que indi na pédagogie bu am solo tegub tableau jàpp na ñëpp ñoo yem même capacité intellectuelle erreur monumentale la boo xam ne depuis l'histoire et l'histoire lu fi amoon la mu dindi ko seet ne xel yi yemuñu mu indi ay ishaaraat ci tombam yu tedd ya won ci ki nga xam ne bu jaarul ci njàngale mi nii ci académie mën nañ ko tombal ba mu xam ko waaw boo xoolee Braille danga xam ne kon am na beneen langage kon alhamdulilah foofu la jaar ba yar mag ña jox leen yarub lislaam boo xam ne euh, ka jàng ba ne ar ak ka mu yar di la joxañ di la tegtal baaraamam bu tedd ba yéene yam maqaama ya tabaraka wa taala loola mu bàyyi fi euh, nekk fi ak euh, waa kër Mamor anteset nga xam ne ni ma koy wax ñoom kenn ku ne sa moroom la gën a loon sa bopp ñu xar baax xoti baax parce que loolu xew loon ay doomi bàyyi dañuy daawu ñu def noonu si santé xuloo def nangam mais ñoom kenn ku ne sa moroom la gën a loon sa bopp ñu dëkkee fi noonu jàppale ko euh, ku ñu téye fukki at ak juróom te la nga yor dara sikku ci am nga mayu yàlla waaye am nga bokk yu baax kenn ko ne nekk comme ni état bi amee ambassadeur kenn ko ne nekkal ko fa nga nekk tàmbaleel ci maam Cheikh Anta def la mu war a def lépp ba seeti ko sax maam Cheikh Ibra Faati noonu Sëriñ Masamba noonu kenn ku ne ci rakkam yi waa kër maamu Anta def noonu Cheikh samu fi tegoon ñooñu itam kenn ku ne tàmbaleel ci maam Cheikh Ibra Fall ak ñii mu nekkaloon fii ci dëkk bii ci jaarim nga xam ne fi la gën a nekk ñoom itam ñu wane seen i xar baax ci jaamu yàlla ci liggéey ci waxtu woo xam ne jafe ga bari mu bàyyi fi ku mel ne Cheikh Mouhamadou Moustapha te ñàkk amee jafe-jafe ndax ku toll ne Serigne Touba ku ko remplacé wax dëgg yàlla am nga beaucoup de fii à retordre am ngay jafe-jafe c'est normal ku mel ne Cheikhul Khadim boo ko gisatul da ngay yaakaar ne waratu la bu ko defee fekk mu def ci moom yar boobee mu yaroon def ci moom ak nite joxoñ ko ne ko àndal ak Cheikh Mahamadou Fadal ngeen dànd Tuubaa kii ndindi kii tindóodi ngeen nekk fa di jaamu yàlla di liggéey di siyaare si noonu la ñu def euh, li mu nekk fii lépp Cheikh Mahamadou Moustapha ca Ndiisoo bay na fa la daan lañ daan barkeeloo ci kër gi di ko xéwloo foofu la daan jóge am na bis Cheikh Mahamadou Moustapha bindub leetar jox ko ndaw ne ko neel ku tedd ci njaareem jox naa ko fukki fukk fukki fukk mooy fukki sàkki sàkki fukki pied pied unité de mesure la woon bi ñëwee sëriñ bi xamul li wax ci lettre bi ne ko lan mooy fukki fukk kooku ndaw li ñëwaat wax ko ko mu boole ca waxtu woowa ab junni ne ko maa ngi koy jéggaloo ne ko fukki sàkki fukki pied alhamdulilahi ba kooka booba teel nañ koo yar ci nu mu war a nitee nu mu war a yiwee nu mu war a yéwéne nu mu war a yaatale nu mu war a yàttale ngir mu mën a euh, wuutu bàyyam waajuram wu tedd bi di xaadimal Mustafa kon lu ci bëree bëri Serigne Cheikh Bara wax na ko dafa tolloog rek euh, conseil supérieur bu Daaru Xuddoos su fekkee dajale na lu mel nii fekk fi seen kuréel bii mu ñaan mu wéel ko nga xam ne njaareem day symbole ci yoon wi nekk ci centre Sénégal di symbole ci résistance boo xam ne ci diggante tubaab bi ak résistants yi fi nekkoon bu ko ci gën a éloquent amul ndox ba léegi danañ ko leeral kon alhamdulilah loolu na ngeen ko wéyal dégg nañ ci ni ngeen doxale bu baax a baax loola di ko sëriñ Mouhamadou Moustapha euh, yóbboo Touba ci ndigalam ànd ko ak Cheikh Mouhamadou Bachir yebal ko mu yóbbu ko ak ña ca war a ànd yépp ñu ànd ko ñuy wax Moustapha Magi Bas képp ku ko Magi rek ku ko waxoon ñu xam ne mooy sëñ Maodo Moustapha loola tey jataay bii feeñal na ko noo ngi ci kër Cheikh Mahamadou Bachir sëñ Maodo Moustapha liggéey ba ca war tegale bu ne defe naa ne ndam lu jëkk la mooy la jub bu fekkee jub na muy base bi Cheikh Mahamadou Fadel ñëw fi indi ngëneel سيري عبد الله نيو في عندك فيت اكو نجب رخص هذا لب سيري عبد الخادر يور سيري عبد سيري سالي نيو في لب دم بولي كوك فاس جل لب السيفة بغي سيري كتاب نغا جيس شيخ محمد لمن بارا بن نيو ياتل بباخ باخ لب مو يقل سيري سيدي مختار نيو في اقراس نتمن الحمد لله رب العالمين جروم نياري نيو ñoo yor Sénégal jiite ko depuis boobaak léegi fexe ba bàyyi fi ndono lu mel nii muy dëkk boo xam ne mooy deuxième capitalu Sénégal ba pare borom sos ko ngir l'islam loolu defe naa ne euh, boole koog mu mën a dugal genn màggal goo xam ne day dugal 400 milliards ci réew gën presque juróom benn weer yoo xam ne de travail loolu yaakaar naa ne Cheikhul Khadim bu dellu si woon mag bu ñu dellu si woon dégg mu ne ilay xaadalaahu ma lam yakun yaakaar naa ne ko gëm danañ ko gëm kon Cheikh Mamadou Moustapha moo jëkk a def décentralisation li ñuy wax décentralisation bi tey foofa la commencé parce que dafay wut espace boo xam ne euh, lii ñu ko sas muy sas wi muy jumaa ji or amu fi woon jamaa amu fi léegi la fi pétrole am léegi dañ ko gis ci Sénégal te mi ngi indi coow yu jeex booba bay rek moo fi maanaam kon fokk mu nit ñu futtiku mu bay seet ay xalaat ay scénario yoo xam ne bu ñu ci jaarale euh, danañ mën a saytu jumaa ji ndax ndigal la loo xam ne munu ko ñàkk def euh, loola bi mu ko defee mu dem Daaru Nay dem Taïf dem dëkk yu bare bari gor ko jam yi coon xusnul maab fu ne fu ne fu ne ngir mais fondation il fallait que ñu wut yeneen surface nous la ko defee ni dem taalu jàngee di di di di di di boy nit ñi luñ ci am ñu def engendré li décentralisation te fépp fu ñu fa dugg ya ca war am yépp dana ca am dana fa am kon kooku day dugg aussi ci développement ci développement te loolu lépp jumaa ji moo ko waral nga xam ne kon booy waaxu jëm ci yàlla doo jaar ci ñal yi mukk yaa ci xal yi kon loolu mooy décentralisation bi nga xam ne euh, def na ko ginnaaw ba nga xam ne xaadimu rasul wane na ne nit ku ñuul xeebeel gën ko xeeboon loolu du ci dara amul différence am ak ku wex xel mi moom suñu borom jox nako dom adama ar-ruhu hayatul badani wal aqlu hayatul ruh ruugi mo ëmb jëm ji mo ëmb ruugi waye ruugi nak xel mo koy suxat xel momu ba ko yàlla joxe la waccu nun ci lañu mëna sayto a nu mëna doxale suñu aduna ci lañu mëna sayto itam nu mëna jamm yàlla bu ëllëgé buñ demee am luñu fa fek xel rek dañ ko yàlla joxe gisement la boo xam ne du jeex mukk waaw kon alhamdulilah loolu moo fi indi jàmm ñooñee mu ànd ko ak mag ña mag ñooñee néew na ku ci rëcc ci jataay bii ca bokkoo ca ñooña kon lii tey du jaaxal kenn jataay bu rafet rafet ngeen taxaw kon alhamdulilah ñu ngi sant bu baax soxna maam Fatima Remalo mi nga xam ne jëmmi Cheikh Mamadou Moustapha la yor ci mbaax gaaw yiw gaal yaatu gaal yaatal ñu ngi koy sant bu baax conseil supérieur ci njiital sëriñ Abdourahmane Mbacké ànd ko ak sëriñ Youssou Mbacké ànd ko ak sëriñ Omar Mbacké ànd ko ak sëriñ Aliou Mbacké ànd ko ak ñëpp bu ñu leen tuddee dana doy sëriñ Abdourahmane moo ko jiite ñu nekk coordinateur bi kon noo ngi sant ñu ñi fi teew préfet ñu ngi lay sant bu baax ci wàllu googu euh, di leen xamal ne lii xew ci ci ci nga xam ne ñii ñoo ko def ma ne leen juróom-ñaari nit dong ñoo def juróom-ñaari nit ak ñañ ko war a àndal ñoo indi Sénégal fii ci développement mu ngi gis mu nga xam ne bu ñu yëkkatee seen baaraam fu ñu joxoñ ñu daggu ci lu amul sikki sàkk mooy ñu tënku ci ndigal ay millions doomu aadama boo yëkkatee sa baaraam bu sew boobu bu ko kenn xeet ndax fa nga joxoñ rek fa la ñuy def bu ko defee ñooñu ñoo indi jàmm Sénégal

mag ñi ñoo ko waral ku mel ni Cheikh Mamadou Bachir moo xam ne Cheikhul Khadim Cheikh Moustapha moo yor jëf yi ni ma ko waxee sëñ Fallou yor lewet ji ngëneel bi sëñ Blaat yor jëf ji ak yéene ji Cheikh Mamadou Bachir yor xam-xam bi moo xam ne kan mooy Serigne Touba ñi fi jaaroon te kenn xamu leen anañu binduñu defuñu dara moo ne am na ñu baax ñu fi jaar waaye ñu ci mel nii ñu waa kër Mamour Anta Sali dajaloo nekk benn lépp ñu def ko jàppale Xaadimul Moustapha ci loolu Cheikh si ñëw fi ñu def ko ba ndono li agsi fi tey lépp di lenn fu mu joxañ fu ñu seen Cheikh si di Muxtaar joxañ ñu dagg ko alhamdulilah ibrahim loolu kenn gis ko ci àddina jàmm ci nekk te Xaadimu Rasul résistance pacifique la def musta rey melantaan nga yor jaas yi wala nga woddoo bomb ne dugg ci jumaa ni da ngay rey sa morom jullit te boo koy def kat da yuuxu naan allahu akbar kooku wute nag li sëñ Tuba kon bu ñuy wax lislaam yi muhammadu sallallahu alayhi wa sallam jàpp naa ne bu doon dellu si àddina dana ñëw ci kii mu ko tuddee bàyyi waajuru kii mu ko tuddee muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wala ñii mu ko tuddee muy xaadimul Mustafa foofu la jëkka dem dem nemmiku ko parce que defal na ko lu ko kenn deful lu ko kenn defalul kon euh, mooy jàmbaar ji fi nekkoon wuuf mag ña bokk na ci sëñ affaire ko jiite loolu julli tabaarakallaahu loolu lu am solo la sëñ Masamba nekk fi sëñ Balla Coro sëñ Issa Dieng mag ñu baax nañu sëñ Balla Fall euh, sëñ waaw ñu mel noonu mbokkam bokk yu baax yi rek yi fi ne mooy li ma wax léegi kenn mucc ci ci ñi fi toog ci mag ñu baax woon ñu àndoon gëm ko te booba waxtu jafe la mu jafe ginnaaw bi mu fi Cheikh Mohamed Moustapha entre les deux guerres réalisées. entre 14 18 et 19 45 ci diggante 14 18 39 45 diggante boobu nga xam ne ràgg fi am rafle Agram. ràmm rafle ak nga xam dara Darangul xeex conséquence su c'était les affres de la guerre xeex xeex a fi amoon te xeex musiba du yem ci boppu borom ay du yem ci boppu borom dafa dem ba àddina bi yëpp mu naqari am na waxtu woo xam ne sax ci waxtu Cheikh Mouhamadou Moustapha da ko ca yàlla séddee que si ñëw ci xéewal boo xam ne ma ne sa caa jàpp moo di am na waxtu woo xam ne cëgg lii la ñuy wut cëggal guy xam ne boobu kuy génn sa kër sax da ngay àbb loo sol boo ñëwee abal sa morom tëggal guy lii ci àll bi tëgg ñu fay leen tëgg li bari fu ne ñu fay leen ba noppi dañoo taal la amatul njariñ dañ koo taal la ko kooku kii maa ni Serigne Touba la alhamdulilah mook Cheikh Mamadou Bachir Cheikh Mamadou Bachir fi may wax yow xam naa ci lu wér sama tool yële ca Ndiif Cheikh Mamadou nekk na fa ak Cheikh Mahamadou Moustapha seeyal ñeent fukki dongo yoo xam ne da koo seeyal ci daara Cheikh Mamadou Moustapha kooku wax dëgg yàlla jàppale fu mu jàppale foofu la mën a ko ci di joxante war na bëggante yéenante jàmm ci loolu lan woo njaboot ndax dafay mel ne day bëgg a dafay mel ne luy bëgg jeex loolu kon ñoom doy nañu royukaay nañ leen roy te di jëfe waxtaan wi baax na waaye lépp luy seen jikko muy makaarimul axlaaq nanu ko jéem a jëfe di ko jëfe suba di ko jëfe ngoom di ko jëfe bëccëg di ko jëfe guddi bu ñu ko defee duñu juum ndax ñoom alxuraan lañu te alxuraan mooy euh, téereb suñu borom tabaraka wa taala te lépp ngi ci kon alhamdulilah ñoom euh, la leen waroon lépp def nañu ko ñuy sant bu baax nag suñu Ahmadou Mokhtar di sant njaboot gi yëpp di sant dawaayir yi fi teew yépp di sant Serigne mustapha Mohamed bu baax a baax jëwriñu kër gi ci xolam bu rëy ci jikkoom aw melom rafetaayu jëfum ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax di leen ko seereel di sant ahibaayu xadim ak wilaya ci seen jëf yu rafet yi ngeen jëf wax dëgg yàlla jataay bi rafet na lool kon nañu ñaan yàlla lii wéy ndax ñoom buñ dellu si woon danañ bëgg lu mel nii rek lañ bëggoon euh, Serigne Touba ñi ko bokk damay faral di wax ne ñaar ñi ko bokk boo leen déggee ñu wax euh, lu wuute wala ñu béejoo rek am na ci ku gëmul Serigne Touba am na ci ku gëmul Serigne Touba wala ku doxalul mbirum Serigne Touba ndax jàmm rek ko tax a jóg bachare yi yépp ko tax a jóg muy mission bi prophète bi Muhammad sallallahu alayhi amoon moom la am muy bachari yépp moo ko intéressé kon sëñ Abo Kébé moom it ñu ngi koy sant bu baax démb dañ koo song rek ne ko demal ci plateau ba fa saasa la bàyyi lam defoon lépp dem tey jii itam gis nañu wax ju rafet ji mu fi wax ak ñu fi jël kàddu yépp kon préfet ñu ngi koy sant bu baax di ñaan nga santoon ñu gouverneur mu santoon ñu dem ba ci boroom réew mi ñu ngi koy sant bu baax euh, li ñuy tëj rek moo di euh, ñi def organisation bi li ñu def rafet na lool nanu ko wéyal at mu ne ndax kër gi dañ koo bëgg a dundal te yoon wi ki nga xam ne mooy Xaadimu Mustafaa dañu ko bëggoon a seeyal ni ni ñuy seeyalee doñ ju suukar ci ndox mu tàng mu résister pacifiquement wéeru ci suñu borom tabaraka wa taala yor xalibaam ba loolu amul tubaab bi def échec foofu beneen échec bi njaareem moo ko illustré njaareem benn place bu gën a mandargaal échec bu tubaab bi li mu bëggoon ci Serigne Touba amul ndax lam bëggoon ci moom moo di baatu laa ilaaha ba mu yëkkati woon tey la gën a riir tey la gën a jub waaye nag dikkeewaat nañoo yeneen pexe yu bees ñu bàyyi ci xel dikkeewaat nañoo yeneen pexe yu bees média yii nañ ci def attention aw xal la boo yoree xel man nga cee bañ a lakk boo yënul xel gëmm boo naan cuut daal di gis bi saa si mu lakk kon xel loolu lay jëriñ mën nañ cee defar juróom-benni weer dong mën nga seen cee defar Sénégal ne leen bu ngeen di dugg ci kaar rang leen jaar fii bu ngeen amee mbalit bu leen ko sànni ci mbedd mi leen leen ko ba gis poubelle ngeen sànni ko def leen nii def leen nii def leen nii bu ko defee seen éducation civique dafay renforcer waaye ku mën a épingle ko ku mën a wax lu ñaaw wax ko loolu dëppoowul ak lu Sëriñ Tuubaa bëgg dëppoowul ak ak li Cheikh Mahamadou Bachir ak magam ñu ji li Cheikh Mahamadou Moustapha bëggoon Sëriñ Tuubaa lañ bëggoon ngir waa Sëriñ Tuubaa ku fi mas a jaar Sëriñ Tuubaa day wàcc ci yow di jëf di wax di dox kon alhamdulilahi rabbil alamin nañu xam ni Serigne Touba moo nu boole waatasimu bi hablillahi jamian wala tafaraqu bu fekkente ne kenn ku ne loolu yaa ngi koy wax booy da lex yi waaye boo jàppee ci bu mu yàlla di bëgg a dagg sa wàllu yóbbu ah loolu taxatul ñuy wax kon buum gi mooy xabl matin la muy buumu suñu borom tabaraka wa taala kon fii itam ki nu ci boole muy xaadimul Mustafa bi suñu yaakaar tey ëllëg nanu xam képp ku koo jàpp xob la wala muy car di banqaas ci garab bi nga xam ne mooy xaadimu Mustafa nañu nangoo toog ci këram nekk benn mu yiiru wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu amin amin ya rabbal